dal leen a jàmm ki seen xibaaru mbatiit di leen yëgal ne les eaux noires mooy turu téere bi nga xam ne kii di professeur Abdoul Kane génnee na ko moom mi nga xam ne professeur université la niki noonu it cardiologue la génnee na téere boo xam ne ci waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu jafe-jafe yi nga xam ne benn njaboot na ko dund ginnaaw bi nga xamee ne Ebola daloon na ko. téere bi la nag génn ci jamono joo xam ne benn feebar mi ngi lëmbe askan wi muy Covid 19 mu ci waxtaane lépp jëm ci wàllu jafe-jafe am ci wàllu wérgu yaram ak paj mi rawatina ci jamono joo xam ne ay feebar yi ngi gën di feeñ di gën di fés te feebar bu di génn rek nekk loo xam ne dafay am loraange te it dafay jeexital ci wàllu koom-koom ak ci wàllu dundin askan wi dañ ko dellu siwaat SODAV di kër gi nga xam ne mooy toppatoo koppar yi nga xam ne way fentkat yi ñu ngi koy am jamono jile génnee na benn fonds koppar gu toll ci 120 millions ak lu teg ngir daal mun koo wàlloo artistes yi nga xam ne jamono yu sonn nañu looloo tax muy xam ne ne fond bi lee bokkul ak fond bi nga xam ne ñu ngi koy xaar ci force Covid 19 ñoom SODAV ñoo ko génnee ngir mu cee wàllu nu mu gën a gaawee artistes yi ci noonu sax wooy fentkat yi dem ci wàllu bind ak wàllu théâtre ñoom ñooñu lee dinañu jot ci paiement répartition atum 2019 bi toll ci fukki million ak juróom-ñaar ak lu teg lu ni mel dina tàmbali altine jile niki noonu sax ñu ngi ñaan képp koo xam ne mbir mi soxal na la te nga am ci wàll mun nga woote ci seen numéro bi di 33 889 01 86 lu ni mel nag ngir wàccoo ak digle yi woykatu docteur ngir bañ dagaloo yi ak jaabante yi foofu la ke SODAV conseil bi di xam ne ngir it gën a jàppale artistes yi lee daañu jox képp koo xam ne am nga ci wàll fanweeri junni yoo xam ne dañu ko jël jébbal la ko ngir dimbalee ko artistes yi ci jamono ji nga xam ne sonn nañu loolu tey jii nag dañuy dalal ki nga xam ne moo di Cheikh Dampa nekk vice président fédération nationale des professionnels de l'habillement di FENAF e jamono ji la ñoom ña ngay ñaw ay masques yoo xam ne fii lañ ko ci réew Sénégal te it mu wàccook norme yi lu ni mel ngir dimbali askan wi ñu mën a aaru ci coronavirus. ndax mënuñu xam fu mu nekk nii foo toll ci production masques yi. donc ñu ngi ci production 100 000 masques yi état confié à la FENAF. E donc euh, liggéey bi avancé na bu baax a baax parce que ñu principe bi ñu def dañ ko dañ centraliser coupe bi dañ dajale fépp ñu koy daggee fenn et puis di ko séddale suñu membre yi par des tranches de euh, cent deux cent cinq cent ku nekk ak capacité de production bu am donc fu mu toll nii ñoom ñaaw nañ ba delloosi ko ñu ngi actuellement ñu ngi ci euh, conditionnement bi conditionnement bi mooy ñu ngi koy paqueté di ko emballé benn benn di ko traité d' abord à la vapeur dañ jël fer bu tàng jaarale ko ci kawam def ci vapeur pour mu rey microbe yi après ñu emballé ko euh, par par benn benn après door ko def ci carton yi donc xam naa semaine bi lañ ko war a livrer en principe à Euh, au gouvernement. alors ci wàll masque yooyu dañoo seetlu ne euh, am na aussi benn xeetu made in Sénégal bu ci nekk maanaam masque yi nekkul rek comme masque yi ñu jógee bitim réew mais dafa am ay tissus yoo xam ne yoo xam ne moom la askan wi gën a miin ngeen di ko jël lu tax ngeen defaree noonu. waaw xam nga effectivement xam nga ñun ay ay ay ay ay couturier lañ donc euh, couturier yi tamit dañuy indi seen touche ci ci mbir mi te Sénégal moom dëkku dëkku dëkku mode la moo tax bu masque yi kii da nga ci façon yu mais euh, il faut que ñu ñun ñu jàngee ci épidémie tamit euh, ñu jëlee valoriser suñu suñu suñu suñu suñu suñu aada ak suñu cosaan maanaam dañuy jël suñuy tissu africain euh, notamment le vax moom lañu gën a rañee ci tissu africain yi bon parce que non seulement aussi vax bi pourquoi parce que c'est adapté dafa adapté parce que tissu coton la de matière bi nga xam ne la day neex entretenir mun nga ko fóor plusieurs fois mën nga ko entretien désinfecté ko donc moo tax et boo ko defee ñu daal di koy styliser bu ko defee nga gis ay design yu rafet et puis loolu yëpp c'est pour euh, une question de ñu de mettre en valeur suñu suñu suñu suñu culture donc moo tax nga gis euh, design yu bare yooyu bu dee masque industriel la yooyu kenn mënu ko fóot yii mën nga ko fóot mun nga ko fóot passé ko guddi gi donc euh, boo ci amee ñett tous les quatre tous les quatre heures de temps tous les trois heures de temps nga changé boo ñibbee kër yo ngoon nga fóot ñett yi denc ko mais au delà de cela pour ñu adapté ko ak suñu aujourd'hui da ngay gis ni que dimension boobu la pour production masse bi gën a jël ñu koy adapté parce que dafa mel ni euh, ñun ñëpp dañuy ñaan fu mu mbas bi gaaw fi jóge mais dafa mel ni mbir mi euh, da nga maam euh, jeexagul. et xam nañ que nit. gars yi dañ koy xaw a ak seen seen sol ko quoi. voilà voilà dañ koy adapté ak seen coono dañuy nit ñi dañuy bëgg léegi de plus de plus en plus ñu ñuy ñawal dañuy ku ñaw bu desee tissu bon dañ ko ñawal surtout jigéen ñi ñoo koy gën a stylisé. ndax da ngeen gis ne dafa am benn xeetu effet de mode bu am ci masque yi ak ni ko askan wi di taamoo fu mu nekk nii. oui gis nañ ko non bu baax a baax mu ngi gën a jël ampleur parce que boo xoolee léegi production yi moom vraiment euh, ay ay tissu yu yu yu yu yu yu fashion la ñuy jël. et euh, di ci def ay modèles vraiment beaucoup de modèles am na ñi nga xam ne sax euh, dañ koy dëngama styliser ba day jël forme kanam bi donc yooyu yëpp di ko styliser donc euh, vraiment muy jox beneen dimension mbir mi malgré que nag <laughs> mbas ci période mbas lañ nekk mais xam nga rek Euh, man loolu laa doon wax benn waaye ma ne ko bon du du jamono la du du du kii jamono du du du jamono la quoi. mooy wane yéen seen créativité yéen tailleur effectivement xam nga créativité tailleur Sénégal moom ken mësu ko kenn mësu ko werante waaw tailleur Sénégal yi moom dañ mës a am créativité et ba ci ba ci période mbas mi sax ñu ngi ciy wane seen i créativité suñu président lu mu wax rek mu Euh, sant yàlla bon mbas moom kenn ñaanu ko mais tey au moins ñu bëre par exemple menuisier liggéey waxuñ ko mu kii mais euh, keneen ak keneen waxuñu ko mu liggéey mais tailleur lañ sollicité demoon nañ bay jaaxle parce que liggéey amatuloon mais yàlla ci biir euh, mbaaxam à travers pandémie bi bon nit ñi tamit am na artisan yi ñu ngi ciy ko parce que ñu ngi ciy liggéey ñëpp a ngi ciy gis seen bopp daal fii léegi ndar keppee seen xibaaru mbatiit jërë ngeen jëf ci déglu bi bonjour et bienvenue dans votre Les eaux noires, c'est le nom du roman du professeur Abdul Khan, professeur des universités et cardiologue, un roman inspiré de l'épidémie à virus Ebola et qui annonçait déjà l'apparition de calamités à venir liées au bouleversement écologique, notamment l'apparition de nouvelles affections à forme virale comme le Covid-19. Nous y reviendrons. Et puis la SODAV a sorti un communiqué pour que, la, que le conseil et la direction de la SODAV ont décidé, au vu de la situation des membres en ces temps difficiles, de mettre en place un fonds de 120 603 932 francs pour accompagner donc les artistes et autres créateurs. La SODAV indique que ce fonds d'accompagnement est supporté entièrement par elle et est indépendante des fonds attendus et qui seront issus de la force Covid-19. Ainsi donc, une enveloppe de près de 17 millions est dégagée pour le paiement des répartitions des droits littéraires et dramatiques au titre de l'année 2019. Et afin de respecter les normes de sécurité édictées par les autorités sanitaires et administratives qui interdisent des rassemblements, prie ses membres de prendre rendez-vous en appelant au 33 889 01 86. La SODAV a également décidé d'octroyer une subvention forfaitaire de 30 000 à ses ayants droit, et ceci pour soulager ces artistes fortement impactés par les effets du Covid-19. Et puis nous recevons dans la partie invitée Cheikh Damfa, il est le vice-président de la Fédération nationale des professionnels de l'habillement FENAF e qui est actuellement en train de confectionner des masques made in Sénégal. Alors Cheikh Damfa, dites-nous où est-ce que vous en êtes avec la confection des masques? Euh, nous sommes en pleine période de, production parce que y a une commande de l'État qui concerne 100 000 masques dans un premier temps, une première tranche de 100 euh, euh, pour la deuxième phase. Donc nous sommes dans la production. Euh, avec beaucoup de travail, on a installé une centrale de coupe Euh, dans les locaux de l'entreprise euh, du président. Maintenant, la centrale de coupe, c'est là que toute la coupe est effectuée et puis nos membres installés dans les, différentes euh, de Dakar pour la confection par l'eau et selon la capacité de production de chaque atelier. C'est pour que euh, cette production de l'État puisse euh, arriver et bénéficier à tous les artisans, les, tous les tailleurs qui sont dans les points les plus reculés de, de la capitale. Alors dites-nous, normaliser hein, parce que la FENAF euh, a été au cœur de la normalisation aussi de ces, de ces, de de ces masques en ayant peut-être déclenché quelque part le processus de, de labellisation de, de, de ce masque à trois plis euh, qui est considéré comme une masque, masque barrière. donc euh, la, la production respecte les normes mises en place par l'association sénégalaise de normalisation, prennent en charge plusieurs dimensions, notamment cette dimension euh, réutilisation à plusieurs reprises. Les masques qui peuvent être euh, euh lavés 30 voire 40 fois parce que c'est fait en popeline, en coton et voilà, ça peut être euh, désinfecté, lavé et repassé pour plusieurs euh, utilisations. Alors parlons maintenant du style, le style des masques made in Sénégal, c'est quand même en fait des masques à base de tissu, disons africain comme on... Alors cette dimension aussi est importante. parce que on, on se rend compte de la créativité de nos de nos artisans. Aujourd'hui, euh, on voit plusieurs masques, plusieurs modèles et plusieurs masques qui sont différentes matières. Les matières aujourd'hui les plus prisées sont les matières euh, en coton, notamment le vax, euh, que l'on utilise qui est un, tissu typiquement euh, africain qu'on utilise dans différents styles pour faire des masques. Et aujourd'hui, la tendance que nous, constatons chez les demandeurs ou bien chez les couturiers, c'est que les gens sont, sont enclins à euh, à, à, adapter, le, le masque au, tissu qu'il porte. C'est-à-dire que quand quelqu'un, une bonne tante fait euh, un taille basse, voilà, il veut, que les chutes de tissu qui restent euh, euh, puissent lui servir à faire un masque, ce qui fait que tout est harmonisé dans, le port vestimentaire. Et le masque aujourd'hui est partie intégrante parce qu'apparemment, comme je le disais tantôt, il, il semble que on prie, nous prions tous que l'épidémie euh, quitte euh, très, très vite le pays, mais il semble que euh, on a du chemin encore à faire avec l'épidémie, ce qui fait que les gens aujourd'hui commencent à s'habituer euh, au port du masque et donc euh, à, à lui trouver Euh, des styles beaucoup plus adaptés, euh, que ce soit plus quelque chose qui va être considéré comme euh, une obligation contraignante, mais qui peut être portée avec beaucoup de plaisir au-delà de la dimension de protection. Vous avez constaté qu'il y a un effet de mode autour du masque Made Sénégal Ah oui, il y a un très grand effet de mode, hein. Il y a un grand, très grand effet de mode parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, euh, les couturiers ne sont plus, chacun avec ses, les bouts de tissu qu'il qu a dans son atelier, est en train de, de, de, laisser libre cours à son imagination, à sa créativité pour euh, diversifier les modèles, utiliser des matières, rendre le masque euh, fashion, c'est-à-dire stylisé, stylisé et pour que voilà, le port soit agréable. Merci beaucoup. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.